voilà. Hmm. dégg naa mu wax. ah Pape Djibril. gën a changé waaw. mu gën a sage. <laughs> <laughs> doyen dégg naa li mu mais may xamal doyen rek que ne le président Khalifa Ababacar Sall pour mu convaincre nit ñi ci discours loolu du poser problème. parce que sénégalais instant bi li ñu soxla mooy dal te dal googu mi ngi ci moom ak yar ak teggin te loolu yëpp mi ngi ci moom te nit la boo xamante ne nii parce que da ngay xool bi mu fi nekkee maire dakaar Dakar deuxième bi mu koy utaat bi mu nee dafay dëgër pire euh, marchand ambulant yi nga xamante ne ñoo nekkoon biir Sandaga dañ ne dañ marchand yi marchand ambulant dañ ko ne duñ la voté laat mm. mais xalifa dafa président xalifa dafa leen ne même bu ma voté laatu ma war a def dinaa ko def parce que dama woote Dakar ville sans sable donc su ma bëggee liggéey loolu ñi fi nekk il faut ñu yëkkati leen mais terewul dafa continuer ci lancé boobu parce que nit la boo xamante ne aussi dafa am gëm-gëm te bëgg a falu bu mu tax li nga war a liggéey doo ko liggéey loolu dafa am importance parce que bu nekkoon keneen ko bu fekkoon koo xamante ne ni dafa am lu muy ragal wala lu muy daw wala bëggaat wala mu wala mu ragal bañ a faluwaat kon du yëkkati ñooñu daf di bàyyi ñu toog donc li bëgg liggéey du ko mën a liggéey te boo xoolee li ko gaar ci loolu la jóge parce que gis nañ ñi mu doon taxawoo askanu dakaar di liggéey si loolu lañ ko jëlee tëj ko ba tey jii mu indil ko lii mu ko indil nii euh, te boo xoolee aussi dialogue bi li ko waral parce que xalifa moom lañ tëjoon parce que dañ olof dafa ne mbajum kanam borom a fajal boppam am na loo xam ne kenn mënu ko ko lijjantil moom moo ko mënoon lijjantil boppam moo tax bi président Macky Sall wootee dialogue xalifa effectivement ci dialogue bi parce que dafa a nekk candidat que loolu moo ko jëlee parti socialiste parti socialiste nanguñu woon ut seen candidat ne dañuy topp le président Macky Sall Khalifa bañ loolu kon bu ñu yeggee tey ba ci càppaandaw li li nga xamante ne moom la doon xeex plus de dix ans tey jii ñu yegg si loolu donc dafay présenté wu. il faut mu dem wax ak ki nga xamante ne mooy kilifa gi ko ki nga xam moo ko tëjoon bu toogee ak moom waxtaan ak moom ne ko mais man samay yëf fan la toll parce que tamit moom du dem bàyyi ko ci noonu Khalifa déjà nekkatul électeur donc il faut mu dem lijjanti boppam ay problème léegi nag euh, nit ñi gisee ko beneen façon yaakaar ne xëy na dafa dem pour euh, yëfi boppam wala affaire yooyu xalifa du genre boobu xalifa nit la boo xamante ne il n'est pas corrupteur taxaw Sénégal ñi fa nekk que muy le maire Barthélémy Dias que muy le président Khalifa Ababacar Sall amul kenn koo xamante ne dañuy politique politique gu corruption parce que man li nga may gis ni li ma gën a bañ ci àdduna mooy corruption fu ma am du ma toog mais ñoom dama leen naw ci jikko moo tax ma ànd ak ñoom parce que politique du xeex dama bëgg a liggéeyal sama réew. mais mais da nga ànd ak ñoom parce que tu es un pur produit. non pur produit parti socialiste ara surtout Adja Aram Dieng moom def naa ne. socialisme nga juddoo. ci nga yaroo ci laa yaru ci laa màgg. donc fekk woo leen ñoom ñoo la fekk. dëgg la ba tey rek mais li ma bëgg a liggéeyal sama réew yaakaar naa ne jarul jarul xeex jarul xuloo jarul wax ju ñaaw parce que boo xoolee dëkk yi nga xamante ne dañu avancé yëpp taluñu coow dañuy yaru. boo demee Dubaay naar yi da ngay gis dañuy yaru tellement yow da ngay xool ci ñoom dangay rus da ngay naan pourquoi pas ñun suñu dëkk meluñu nii xel mooy liggéey mais du du du du du gémmiñ da ngay toog xalaat li nga bëgg a def nga def ko nga ne lii laa bëgg ci réew mi nga def ko donc pour man politique jarul coow jarul salteel parce que dañuy dem ba nit ñi dañu jéppi politiciens yi parce que seen façon seen comportement te politicien bi ci gën a rëy Lamine moo ci gën a doy parce que yaakaar nañ ne xëñ na foog ngay wax ñuy naan kii moo mën a communiquer kii moo mën a lii alors boo ko seetee ba ci biir ku xa ku safaanoo lay doon en général genre nit yooyu li ñuy wax nekkul loo xamante ne lu ñu gëm la te dafa jot Sénégal instant bi ñu tabax ay nit ñu bees indi ay façon politiciens yu bees ñoo xamante ne ragal nañ yàlla te lu ñu leen dénk dinañ ci dinañ ko doxal comme ni ñu ko war a doxalee ba sénégalais yi gis ci seen bopp parce que tam yàqum xaalis bi ci réew mi dafa bëri ci yoo xamante ne ay détails la nit ñi tollootuñu foofu instant bi Sénégal wax dëgg yàlla bu ñu yàlla mayee ñu yegg ci 2024 wax dëgg dañu bëgg yegg ci beneen niveau doy na nous sommes trop en retard dafa doy fu mu ne nii beneen Sénégal bu bees dañu bëgg gis te ñu ngi ñaan yàlla le président Khalifa Ababacar Sall jël réew mi pour que mu mën a yóbbu euh, Sénégal ci fi nga xamante ne moom lañ bëgg mu yegg fa. nee na ay politiciens yu bees lañu bëgg politiciens yu bees lañu bëgg te Khalifa ba mu dalee politique ëpp na 40 ans. ah oui donc euh, déet ma ma maa nguur de. yaa ni politiciens yu bees lañu bëgg. waaw mais maanaam jikko yu bees. mais xalifa mu dali politique am na 40 ans de. waaw mais loolu du ci dara. xalifa lépp fi la ko fekk. lépp fi la ko fekk mais sant yàlla te yàlla na fi lépp gën a fekk. waaw Ablaye Wade nii ba mu demee ba mu demee nit ñi dañ ko doon jooy. wallaay nam ma ko ba bëgg a tey bu ñu soñoon tey Ablaye Wade toogaat. léegi nag doon nit ñi yàkkamti woon nañu. waaw naka ngeen di def ak seen waa PS nag. amuñu ngi wax xalifa sans le sans le yeewi askan wi d' accord parce que xalifa mhm. existé woon na avant le yeewi mhm. mais xalifa sans le PS mais pour euh, Jean-Baptiste aussi sans hmm? Jean-Baptiste aussi déposé na. oui mais comme moom bëggul ñëw ci plateau yi donc je préfère ne pas parler de lui. <laughs> non il veut am na si ñoo xam ne ñu ngi bennoo mais am na ñoo xam ne ay xalifiste lañu. xalifa ah. Sall rek la ñuy xaar ñu ngi toog seen biir kër seen biir kër yor seen xalifa dafa bari ay sympathisants yoo xamante ne demuñu meeting. demuñu réunion demuñu manifestation ñu ngi toog seen biir kër di xaar bés bu rafet ñu dem voter Khalifa Sall ñëw toog seen biir kër te bari na si nag.